asalaamaaleykum mbokki internautes yi mbokki Snapchat yi mbokki Twitter ak Instagram <laughs> maa ñëwaat alliance mama ah, ah, alliance Mamouska <laughs> dama juumte ay wax day kii waay day yéex lu dëgg <laughs> maa ñëwaat nii tey nag fi ma génn daa nooy dëgg neexul Moustapha Thiam lay doon ah Seydi Soxna Xadi ah borom parcelle dëgg neexul borom sañ-sañ waaye moom ma abiyee nag seen tur bi nag bokku ci moo ma abiyee carrément dëgg neexul Moustapha Thiam Seydi Soxna Xadi ah borom parcelle borom sañ-sañ yu baax yi borom yére yu baax yi ngeen gis yëpp boo leen bëggee dem leen ah chéri soxna xadi day fay dëgg neexul waaw keñ foofa toj seen tut bi nag benn bobi laa romb ci koñ ba rek ma ne ko seeluwee boolew ci wax de da koo dindi rek bobi rek la ko wax <laughs> mu ne ma rapport <laughs> rapport ay ma del seet li kay wax nag c'est koné daal <laughs> yaa boo yooy bii nag ma indi tey nag bu neex la suñ be suñ koñ daal suñ dëkkandoo ca wet ga rek moom nag dafa garaaw de te bari dosé dëgg loo wax rekk mu ne su ma amee jëkkër su ma amee jëkkër damay cuuraay damay nemmali damay patati damay patata yow daal yàlla def ci semaine ba may waxee rek ñu may ko jëkkër <laughs> sëy bu neex lool te yàggul mhm. jëkkër ji ne ko damay am gan defaran ma salade de fruits mariage bi neex na lol way bis bo sey sey nga defaral ma salade de fruits way mariage ba robu ba ñom luus kalarita sen <laughs> robu yag yoy xam nga ñoom katalina mom mhm. la génne ñu nan ndaw sa lamu sañse ndaw sa lamu sañse ndaw sa genn ak ñaari poupem mariage ba toj mo sey sey ñu yaakaar ne fa lay yem ndekk fa moom daal ba ko jëkkër ji ne defaral ma salade de wi mu génn xam doo laajte ne gone yi nu ñuy defaree salade de fruits dégg na turu salaat moomu salaat bi daa la ko jaaxal dem na jël pom xale yi ne ko pom mu jël pom banaana fruits yu sew yooyu yëpp daal di koy jël ba mu ko jëlee ëmb ko daal di jël salaat bi ana salaat salaat pour soos la mu jël salade ba banaana yëpp mixé ko ñuy wax mu def ko ci <laughs> kiiwam. sukkum la sukkum la tundu xama mukkum sukkum yoy si sukkum yi da la ko dugal <laughs> <laughs> <laughs> fa toj sa ko ne sukkum ko ya bo yoy tay lay de dan koy def defa yàllaaw sa ko ne daal après rek li yalla def rek jëkkër ji de ko ki c'est divorcé sëy batas fo fa toj c'est ko ne il faut être les choses là votre tête quand même ah salade de fruits looy boolee ay salade di ko jàmbate di ko joxe ñu fase ko bu ñibbi seen kër ma nga fa nag kii te room gi yëpp ndeke xamul dara aw yaa boo yooy neex na waay <laughs> waaye kenn duma dikke ñaa fii tooj naa lii neex naa fii nee na tasar <laughs> fii kañ toj na moom rek président ci réew dara da cee xajul ah ko fop lenen tamit nga wax ma waye ma dik ci rew dara xaju fa xamna ne mom bis bo nekké président palais ba dina bari cuisine ndax ni ngay waxé ceebu jën ku ko mën a nga nak <laughs> ku mën togo togg ceebu jeun nga ma diké waye <laughs> yalla dafa dogal ne gor hmm, góorgóorlu rek dina bax de fi toj <laughs> fi neex na fi neena tasar ah te man ara a jaaxal rek assemblée ba mom ku bokkul ku nekkul député sax man nga dem agni bu boba ndax ceebu bu jeun nim koy limé rek dekk ndar tamit waru la tax ak <laughs> mon yépp du dekk su pamé ngay lim c'est connu pourquoi tamit les choses là c'est connu ken xamul li lan la <laughs> sama gëré phase bi fuma yag moma fa yagal waye man li may ñettali man mi la dal ak sama benn copain ki kañ safurlaa copine ma copain <laughs> c'est conné man adja bari mam bintu cissé <laughs> ñoo andon ben restaurant fi rek zalmadi <laughs> fa lañ demoon ci ben ki resto bu ne fofu légui bañu tok lu neex rek a neex moom daal naka mu jël mooy kii seen kii yooyu noonu récepteur yi xaw ma récepteur la tudd xaw ma këyit yooyu ñu lay jox rek ah kii c'est connaît pas si si c'est connaît serveur du serveur de serveur mooy kiy séddale recette du recette lu ne set maa ngi koy communiqué fii kii la mooy këyit yooyu rek te maa wax këyit yi rek léegi nag boo ko defee nag ñu dugg ci restaurant bi nee na day jaay tubaabe xam nga dafa bëgg affaire de tubaab <laughs> nga toog rek serveur vénéré <laughs> mu vénéré après c'est koné daal serveur ñëw serveur comme kii tu veux manger

da temps daal ah li ngay wax tey nga tey set yalla dom rek mu ne déedéet rek xam na ko kutum ba daal xam nga buñ ko defaree rek and ak yiñ cey andal ba musaf ndekete yo ay gunor la sama xarit ba di yey di yey di yey di yey di jallale di jallale di jallale ma ko faire doucement ti wa fatee muy jàllale di jàllale oh serveur revenez serveur isé revenir après il dit receveur receveur resto il est xawma lan parti après receveur ne ko gunóor gunóor il neex mu ne ko il neex sama xarit bi jaar billahi di daanu ay crise ci resto bi resto bi est ce que tëj ko sax fa la jaar febar ba tay c'est koné da ya boyoy gunor lay fàttaliku sax sama asma bi day yëngatu wi ah yéen iya ni nag jonge ci la bokku de ma ngi melni papa rastamande tay rek li ma def metti na fàttaliku dafa neex nag hmm? looy jànk-jànk la hmm? ah, dafa tàng gunóor yi ñoo yëg sama digg bopp bi c'est koné sama réalisateur bi sama réalisatrice bi il m'a génnee fii c'est koné